y no caí mbokki internet yi di leen nuyuwaat bu baax di leen ziar di leen bëggee ñuy suivre du nuyu kilifa diine kilifa aada yëpp du responsable moral daal di message di leen kilifa diine yëpp ah. tey nag ñi fii ci parcelle gannaaw bu Modou Lo moom mooy Boy Niang di félicité ki nga moom mooy Modou di encouragé Boy Niang Pape Mbaye bokk ci ki nga xamante ne moom mooy ay coach Modou Lo dañ koy bàyyi mu nuyoo ñu moom mu décortiquer li nga xamante ne moom mooy chute bi di nuyu waa parcelle yëpp waa Rock Énergie di nuyu supporters yeeg xarit yeeg am di jàmm yi xarañ famille xarañ national xarañ international <laughs> di nuyu ñëpp di nuyu waa Rock Énergie yëpp suma plan yi ak coach yeeg yëpp maa ngi leen di nuyu te leen ziare. Euh, Pape Mbaye kon euh, ni ma ko waxee Modou Lo Boy Niang ci côté préparation gannaaw ba ngeen amee continuité ci combat bi nga xam te ne moom mooy Ama ak ki nga xam te ni moom mooy Modou waaw xam nga Boy Niang ak Ama Baldé bokkuñu bëre. bokkuñu ni ñuy bëree donc tactiquement am na tuuti changement ni ñuy bëree ak Boy Niang am na changement donc euh, moo tax léegi nag euh, ñu waajal ci loolu daal. nga xam bu ne waaye ñu waajal loolu ci Boy Niang waaw léegi euh, dañuy ñëw ci li nga mooy ci côté préparation Modou Lo Boy Niang ci côté préparation bi nan la demee woon par rapport ak combat ak Ama parce que Modou Lo gis nañ ni jël na poids. waaw jël na poids mais jëlu poids bu koy sonal daana gën a jël poids sax. waaw mais dañ ko limité jëlul poids yu ëpp yooyu quoi parce que dañu bëgg mu gaaw am vivacité am rapidité am vivacité am waaw parce que comme que mbër mi bëri na fa nekk mbër boo xam day dam yee te booy ñaar bariwul lu muy raté cible am gis nga déjà bi mu engagé Modou dafa daal di jël tànk bi boo fekkee na boobu loolu waajal ko quoi mm-hmm. waaw. bi ak bële ba différence la am Ama ak Boy. continuité la continuité la parce que déjà ku liggéey lu daan Ama boo waree booy bëreeg booy Niang tactique bi tactiquement ngay changé ni ngay tactiquement rek ngay ngay préparé tactiquement techniquement ak noonu nan ngay fermer Boy Niang ba du bëre wala boog ba li mu bëgg du ko yomb. Euh, dañoo diggee ci côté préparation même Modou wax na ko dafay wax ni euh, préparé préparé Ama moo gën a yomb préparé Boy Niang mais loolu lan lan la loolu laa bëgg nga teg. waaw effectivement wax na dëgg préparé Ama moo gën a moo gën a yomb préparé Boy seulement Boy Niang dafa nekk euh, mbër yu mbër boo xam ne tacticien la technicien la maanaam toujours day damyee bëreem donc kooku combat mën na yàgg que toujours aussi dalay sàcc mën na la sàcc biir bëre kon kooku xel la bu dee Ama Baldé moom day ñëw appliqué ale Ama Baldé du nekk mbër boo xam day yàggal combat moom moom amateur du ko du ko yàkkamti donc day ñëw appliqué bëri li mu bëre techniquement daan quant à Boy Niang il est tactique trop tactique te day damyee combat donc mooy gën a naqaree préparé parce que di nga xam di nga liggéey ci noo ko war a fermer ak liggéey ba nga xam ne bu la waree at bu ñëwee di la agressé wala mooy lu lay song nga mën ko intercepté teeku. ci côté performance lan lan nga may waxal ci côté performance par rapport Ama Modou Boy Niang. ah non mais tolluwuñ ci wàllu performance parce que xëy moo du seen adversaire de même génération la mais Modou bëri na lu yàgg ba génn te ñoom génnaguñu donc loolu performance bi kay yaakaar naa ne Modou lim leen rawee sax daa bëri waaw. Mm. Ah. combat Boy Niang am Modou ñoroon na. waaw xam nga boo demee tey jii ba adversaire de taille ñi nga daan bëreel ngeen nekk ci VIP ñëpp bëri nga ak ñoom deux fois. Ama Baldé maa ngi koy félicité di ko encouragé di félicité Boy Niang di ko encouragé. ñoom vraiment aussi rampé nañu ba dugg cour des grands ba fay am ay victoire. ci cour VIP yi mais c'est normal Modou jël leen bëri ak ñoom. waaw parce que tamit troisième confrontation daan ñi ngi koy wax rek mais boo ko tëggee sax da ngay sentir ne trois non mais du maa lajjee kese Modou Lo bari nañu ñu bëreel deux fois. ak Lac de waaw loolu moo tax quoi. bon ndax nga yaakaar ne nag ñi nga xam ne parce que tey jii par exemple bu ngeen defee dix ans ci benn catégorie am ñu génn dugg ci seen biir mais ñoom dañ leen war a jox seen chance. loolu moo waral kon combat bu naa ñor. ñor na waaw. da ngeen ko tuddee combat de confirmation. confirmation ça veut dire que ni da ngeen di da ngeen da bëreeg waa Pikine ñëpp war a mën a confirmer si Boy Niang mais comme ci façon de confirmation bi nan ngeen. waaw non c'est-à-dire xam nga euh, d'habitude damay dégg ñu naan ñi fi yor roi des arènes yàgguñu moom am na ci ñoo xam ne benn combat lañ ci bëri daan ñu daan ñu nangu ko ci ñoom am ñoo xam ne dañ benn dañ koo jël ñu ko ci ñoom kon Modou Lo bëri na ci ñaari combat daan mooy confirmation bi. mooy bi. Hmm. ñu ñëw ci li xam te moom mooy ci côté bëri bi avant ci bëri bi gis nañ Modou Lo nam daan ñëwee bii passé ak bii dafa am différence. ci côté mystique bi mystique bi moo gën a bari gis nañu Modou li mu tuus macha allah euh, est-ce que tey da ngeen doon démentir li booy ñaa wax ni safoo leen mbër par rapport ak combat Ama Baldé waaw xam nga mbër bu ci nekk ak ni ngay doxale temps bu ci nekk ak na nga koy dundee euh, Modou loolu bu dee ci côté bàkku yaakaar naa ne ay supporters am ak kontaan nañu bu dee ci wàllu mbër aussi li mbër lim daan def rek. ngeen mën a ñëw taxaw ay bagaasam aussi li mu ci soxla war koo sangoo wala mu war ko tuuroo mais def na ko waaw loolu nag boo xëy moom moo xalaate noonu wax noonu rek mais loolu dara néew ci. Mhm. Modou Lo dal dañoo gis ne Modou Lo dernier combat am yëpp dafa dal tey relax loolu lan moo koy joxe. waaw xam nga da ngay dem ba nekk sportif de haut niveau sa moyen dafa am fu mu lay yóbbu sa xel déjà yow boo xamee ki ngay bëre préparé nga ko li nga préparé dal na sa xel mais jotul ngay parax paraxi dèjà yow ki ngay bëri sax moo soxla li nga yor moom lay wut si donc foofu aussi foo ko bëre bi nga damiyee ko teg ko ci tactiquement nooy bëree ak moom. bu ñu ci chute bi nan nga ma koy moo di féete gauche am ak xam te ne moom mooy Boy Niang féete droite tey chute bi ni mu daanee Boy Niang ak erreur bi ki xam te ne Boy Niang def na ko ci combat. waaw xam nga dafa am luñ luñ miinoon ci Boy Niang am luñ miinoon ci Modou tey ji peut-être loolu gisuñu ko ci Boy Niang gisuñu ko ci Modou Lo ne nag ak la nga préparé parce que du toujours ni ngay bëri moom ngay bëri ak adversaire yëpp jàpp naa ne loolu moo nekk ci Boy Niang moo nekk ci Modou Lo aussi parce que Boy Niang droitier la Modou Lo gaucher la donc bu ñu jàkkaarloo li ñu sant Modou Lo mooy da nga koy ëmb ëmb ko seere ko bu ko ëmbee seere ko te Boy Niang moo ëpp rallonge foofu jafe-jafe day am pare nag ñu sànnante ay coups bu ñu dajee nag ba xeex ba xeex ba xeex nag booy ñaa nag la mu bëggoon am na ko parce que lañ soñ lañ njottoon ci moom tamit ne moom lay wut si effectivement am na ko waaye fekk na boo fa moo moo de position ba mu taxaw arrangé wul booy ñaa moo tax ba mu yeggee ci tànk moom mënu ca dara mu lo xëcc ko mu wàcc mu daw contrôle yi ngemb li di koy ki kii suuf mu jug di enchaîné moo loo yokk ko jël na ku kay ku sa jël na ku xeex nañu waaw xam nga ñoom dañoo nekk sportif de haut niveau bu ñu euh, bu ñu dajee foog ku ne da ngay ñam ñamante nañ moom. dafa def impact ci daan. bien sûr. hypercule non hypercule dafa garaw hypercule boo ñaa jël na hypercule. Mhm. jël na ay coup direct jël na hypercule. Mhm. Modou Lo daay Boy Niang coow li gën a bari dégg nañ ay ay ñenn ci supporter am ne Modou Lo na bàyyi dese la tuñ dara am ñu ne il faut que mu am ñu mu bëreel su bàyyee léegi du am chance. mais tey en tant que coach tey Modou Lo Boy dégg nañ suñ papa Ngañ Ngañ jaañ di ko nuyu bu baax a baax mu ne Modou Lo ak Balla Gaye ndax gis nañu combat boobu ba tey mënu di ko gérer mais tey combat yooyu noonu ak Reug Reug dégg nañ ko moom mu ne combat royal la soxla la de guerre dégg nañ ko mu wax loolu mais loolu en tant que coach nan ko. waaw mooy li ma la wax sànq. troisième confrontation moom amul sens. beneen bi ci des mooy. Euh, Modou Lo actuellement ni moom la ñëpp a bëgg a bëreel parce que mooy roi mais ñun li ñuy jàpp rek mooy bu ku ko làmb boole rek mu bëree moom waaw. moom ak lan nga ci ñoom ñëpp ñoom ñëpp adversaire lañ surtout nag adversaire yi mu jotutal musta laaleel ñooñu ñëpp koo ci làmb booleel war naa mën a bëre ak yow. ok mhm. mais est-ce euh, euh, yi mu def ou bien deux sortes yi mu def par rapport ak Tapha Tine doo am côté taille waaw yàgg naa bëre ku ko sut Modou boo xoolee li mu bëre ñu mu tollool bariwul. waaw kon euh, miin na loolu miin na bëri ku ko sut mën na bëri ko prolonge mën na bëri ku ko ëpp masse mën na bëri ku ko gën a diis loolu lépp mën na ko bu la fàtteen tamit depuis ñaata mi ngi bëri événement waaw. dégg mu ne combat royal bi la bëgg cinquante cinquante loolu noo ko dégg. mais c' ci nekk boo sañu bëri roi des arènes waaw loolu koy nangul jaadu na euh, ne euh, en gis nañ Modou dafa ñeme entraînement mais est-ce que tey fi mu toll ci côté entraînement bi est-ce que tamit loolu néew na ba tey fii côté performance loolu noonu lan lay def ci mbër continuité bi ak ñeme entraînement loolu nan lay def ci mbër. waaw xam nga entraînement xam nga entraînement soo koy def doo dëkk ci di def lu metti rek période bu nekk ak ci lan ca lan war def surtout boo amul combat boo amee combat nag da ngay teg sa programme. ñoo la demee waaw. moom exemple ma bu fekkee ne amuloo combat di entraîné li nga war a liggéey laa wax da koy liggéey bokkut ak boo amee komba nga xam ne da ngay teg programme ne lii laa war a def hmm. ànd koog say entraîneur say euh, ànd koog ñu la yor suñu salle de hmm. dem nañ ba naan kii ñaa euh, bi jot na. waaw mais loolu maanaam làmb boo fay dem pare boo paree doo sonal sa entraîneur. te di nga dalal sa xelu supporter mm. waaw. mais ni mu abordé combat bi def ci benn erreur. non lépp teg lépp jaadu na lépp teg ko ci yoon. Mm-hmm. lépp teg na ko ci yoon waaw. Mm. Mm-hmm. bëre Modou Lo ak bëre Boy yi dafa différence par rapport ak ñi mu doon bëre ci cadre ay ñoom Balla Gaye ay ñoom Gris Bordeaux ay ñoom ñi nga xamante ni ñoom ñooy la de guerre ndax dafa bëreeg ay génération wàcc bëreeg ay rakkam mais est-ce que bëreeg boo ñooñu ak bii ban moo ci gën a métti. waaw yéen a xamul tax muy gën a métti c'est parce que ñële dañoo dañ koo mag. mag ko ñi ëpp ñoo ko mag ci làmb ñoo ko njëkk a bëre donc ñun bu ñu bu ñu koy bëreloo foofu dañ koy téye ne bu saa saaxee sa bopp tactiquement nan lay bëree teg ko ci yoon quoi moom it bu ñëw day tegu ci yoon quoi daal di respecter consignes yi mais ñii nag comme que ay moromam lañ donte da leen mag ci làmb rek actuellement ni nekkatul xale bu ñuy wax nii la wala nee la ay mottali moo fi am daal waaw. gis nañu Modou Lo jël bu mu daan booyee ak yeneen jël du benn. ci cadre tey bu ñëwee ci Modou Lo Balla Gaye dégg nañ ñu ne Balla Gaye li mu osé def Modou Lo ne ko benn mbër amul amul audace bi pour def ko par rapport ak génération bi. dañoo amul li Balla am ah non loolu kay jël dañoo amul li Balla am. comme que comme chance su Balla mooy par exemple tey ji Modou Lo jafe-jafeem ci Balla Gaye ko ame mais yeneen mbër de mosuñ ci am jafe-jafe peut-être que ñoom dañoo amul li Balla am rek. comme waaw ci cadre bëre morphologiquement aussi taille bi ak ba xam nga Balla Gaye dafa nekk poids lourd xam nga dafa am ñaari yom dañuy wax mbër ak mbërantaan mbër ak bërikat màgg ci ba pare mat mbër encore macha allah. maa ngi koy nuyu de passage. Ah. loolu la Balla Gaye am. kon mbër euh, boo Modou Lo pour nga ba daan ko il faut nga nekk mbërantaan. ah waaye foog nga il faut nga oser il faut nga oser te taxul nga daan ko mais. foog nga daal nga nga mën a bëre mën a xeex mën lépp waaw. Ah. Ah. ba tey démb dégg nañ ñu ne Sathiès ak Modou Lo li Sathiès li Modou Lo di bëre Sathiès mën na koo bëre gaawaay Modou il faut nga gaaw mel ni moom. gis na bëri nañu ku ñu gën a gaaw sax. Hmm. xam nga ku nekk da ngay imaginer di wax rek mais làmb te làmb waxul dëgg rek li ñuy wax noonu yëpp euh, gëwuma loolu man. Hmm. noo déggee tey bu fa yemoon sax mu neex mu bàyyi jox rakkam rakam instant bi dégg nañ ay fan sam ne dañoo bëgg moo arrêté loolu noo koy dégg. waaw cest diir boo toll <laughs> kum euh, c'est-à-dire boo tollee ci mbégte nag lu ne ngay wax te léegi fet bi jeex mm-hmm. Modou Lo gëj a bëre supporter dañ naan ah waa na ñëw tooyalaat xaftaan boog ndax ñun ndax ndax ñu ndax ñu ndax ñu kii ndax ñu am fête ah, donc dañu ndam lu bees a neex rek mm-hmm. mais. yu mel ni balaa ngay wax dara bàyyil ba ndam li ba affaire yi sedd ba pare parce que décision ci saa si saa si moom erreur la waaw. noo gisee taxawaayu parcelle ci Modou Lo gis nañ Modou Lo buy bëre waxuma sax 1000 pour cent 300 pour cent pour cent dañuy gis ñëpp dañuy génn soutenir ki nga xam te ne moom mooy Modou Lo loolu nan nga ko gisee ak lan moo ko may. waaw mais xam nga tey làmb dafa xew làmb am fu mu toll mais waa parcelle Modou Lo lañ am kan ma fi dugal roi des arènes kan ma fi njëkk dugal événement ah mais lañ am. xam nga kenn du wàlliyaan ku wàlliyaan sa dëkk tëggul mm. mais loolu la mm. ah. noo gisee nouvelle génération bi est-ce que gis nga ci koo xamante ne tey euh, gis nga ni bu du di bëree am na jikkoom wala ci cadre bëri nouvelle génération bi koo xamante ne leer naa na moom ci tànk Modou. xam nga li am solo mooy. Mm. nga am encadrement bu sérieux te mën la ñuy def yow mbër mi nga am sa jikko joo xam ne di nga neex encadré neex accompagné àdduna lépp loo gis dañ koy liggéey. lii bi liggéey bi mooy sabab bi yàlla mooy kiy dogal kenn yorul dogal kenn du def kenn champion du ma cité kii wala kee am na ñoo xam ñu ngi ci yoon wi waaye jikko ju rafet sincérité am encadrement boo xam aussi nañu ànd ak yow di la teg yoon te duñ la jay te duñ la ñooru boo nekku ci dëgg ñu wax la boo nar a jaar yoon ni loolu leen nii la buñ ci góor góorgóorloo ñoom ñi ci des yàlla mën naa def ñu amaat ba pourquoi pas ñu am sax ku gën Modou Lo parce yàlla mooy maye waaw am na solo amaan mbégte contentement bu ngeen doon suivre sur Kewel Info ñu daaloon ki moom mooy Pape Mbaye nekk coach Rock Énergie en même nekk coach Modou Lo ñu gis nag ñoom ñaar ñu yàgg lool gunge ko tete ko ba mu dëgg euh, li nga moom mooy roi des arènes di wax lan waaw di kontaan ci émission bi di nuyu waa parcelle di nuyu supporteru Rock Énergie yëpp rawatina yu Modou Lo di nuyu sama poulain yi nekk équipe Rock Énergie commencé ko ci Modou Lo champion bi ba ñëpp. ñoo xam ne xale yi vraiment taxaw nañu ci combat bi taxaw boo xam ne daal vraiment mën naa wax ne ba organisé dañoo demoon pour jëli victoire bi ndax confiance bi ñu àndal di nuyu aussi ñi bokk ci cent pour cent parcelle bi champion yi fi nekk yëpp ak coach yi nga xam ne aussi participé nañu ci ñu ànd liggéey liggéey bu rafet.